wajalilaayi maskani ñi ngi lay nuyu ci sa turu bopp ci jiite gi nga xam ne daa soob yàlla cay tànnuk sëriñ tubaa nga jiite murit yépp walbatikuwaat boole sa bopp ci biir taalibe yi waaye bokkaat ci daayira bii di nooru daaree ni tubaa ca kanam nee ñi ngi maase di sant yàlla ci loolu bu baax a baax di làmbatu ba daj sëñ Tuubaa nee na dara mënu cee tegal weesu alhamdulilahi rabbil alamin defe naa day sajataay bii mbooloo yu bari ñëw na fi waaye nag bokk naa ci seen mbooloo mii moom maa ngi koy soog a dégg nee na kon loolu alhamdulilahi rabbil alamin nee na yàlla bu la cat jiitu yàlla na sëriñ Tuubaa àggale yéene jëpp ci yow yéene yëpp yàlla ko àggale ci yow nee na dañoo ñëwoon ngor doon siyaare si di la andil addiye joo xam ne bokki taalibe yi nga xam ne ñooy tubaa ca kanam ñoo dajaloo ngir di ko jébbal Serigne Touba mii nga xamante ne bi yaa ko fi nekkal nee mi ngi toll ci ñaari oto yoo xam ne seetar nay sapeur pompier la ànd akub ambulance ànd itam ak ab camionnette boo xamante ne bii dañoo gis ci bokki taalibe yi ñi nga xam ne dañuy liggéeyal sëñ Tuubaa di def nii nuy def ñu tudde leen safinatul amaan te ñooña oto xaw a manqué ci ñoom ñu jaayante woon ko ak Serigne Touba andil leen oto boobu waaye nag lépp ginnaaw buñ ko wutee ba noppi yaa fi Serigne Touba ci sa loxo lay tege amuñu ci ak tànn amuñu ci lenn ñun daal sunu tànn mi ngi ci loo tànn rek ñi nga xam ne it ñoo jóge sapeur pompier ñëw fi. oto yee ci boppam. day seenub liggéey ñoom. du sunub liggéey. moo tax rek ñu wax leen ko. ñu ñëw teew. waaye boo ne woon oto yi. nañuy manq ndox mi. di manq wanag yi. kon loolu rek lañ cey def. waaye ndax sëñ rek la seet. dimbale ni nga jébbal nañ ko sëñ mi ngi nii ci say loxo. di sant nag mbokk taalibe mi nga xam ne. moom ci moom. moom ci moom. ci la ko yàlla jaarale. tam bokk ci kuréel bii. ñu di ko wax Mouhamadou Ali Ndiaye. taalibe moo Modou Habib moom Serigne Abdoulahi borom dër bi la. ma nga nekk ca Italie. ba mu demee dégg soxla si ba lijjanti ko ca tubaab yi. xam ne tubaa ci kanam moom. mënut a ñàkk ay jumtukaay. mu jaayante ko ak sëñ tubaa te bokk ci mbooloo mi. yónnee nu ko. ñu génne ko. bi mu dikkee ci génne gi itam. mel mbokkum taalibe mu ne wax sëñ xaadim Thiam. moo moom sëñ Abdou Khadir. mu toppatoo lépp. ba andi ko. bokki taaliba yi nekk Italie nag. bokki taaliba yi nekk Italie nag. joxee oto bi. bañ oto bi. dañoo wax ne lu koy indi Sénégal. wax ne lu koy indi Sénégal. ma ne nañ ko jaayante. ma ne leen nañ ko jaayante. ndax Touba xaalis bu fi dugg mukk di génnaat. ndax Touba Touba kat xaalis bu fi xas dugg duutu génnaat. xaalis bu dugg Touba. day mel na néew bu dugg Touba rek. kenn du ko soli di ko yóbbu feneen. kon lu xas dugg ci loxoy sëñ Touba. wel na duutu génn mukk looloo tax nag bokki Ita Touba ñu nekk Italie jaayante ko ànd ak sëriñ Moustapha Mbacke ànd ak sëriñ Moustapha Mbacke ak suñu sëriñ Cheikhouna Ndiaye ak sëñ ak ñeen ko ànd ak ñëpp nekk Italie ak France dëkk yëpp rek ñu jaayante ñoom andi ko fayal ko ba mu ñëw ñu toppatoo lépp ba mu génn tey jii ñu koy jébbal si sëriñ Touba mu bokk ci liggéey bi nga xam ne dañ la koo jàppalee rek te fa suñu yéene lu dut foo gestu gis nu rek incha allahu rabbi taala jébal suñu waaw waaw waaw ñu nee na ñi ngi lay jébalaat suñu bopp jébalaat mbooloo mi di lay jébalaat mbooloo mi suñu xel na suñu xel nag dal na suñu yaakaar it dëgg na bu wér suñu yaakaar it ndax yow loo yaakaar rek ndax yow loo yaakaar rek sëñ Tuubaa yaakaar na loola sëñ Tuubaa yaakaar na loola kenn ko yaakaar si yaakaar tas te kenn du yaakaar sëñ Tuubaa yaakaaram di tas ndax rajaahum muhaqiqun wa muliku ndax rajaahum muhaqiqun wa muliku fii abadin ma la yaraahu maliku lii buur di di di jàngal sëñ Tuubaa li ñuy jàngat ci sëñ Touba. li ñuy yaakaar ci sëriñ bi. li ñu yaakaar ci sëriñ bi. bu ko buur gisoon da koy nangu. waaye buur mënu cee teg bëtam. ba nga demee ba ne yaakaar nga leen rek. kon alhamdulilahi rabbil alamin nun sant nañ yàlla bu baax. lii nag mbooleem njabootu sëñ Touba gi ñëpp ko bokk buntu kër sëñ Touba yëpp buntu kër yi ak buntu kër seex yëpp ak donga yëpp ànd nañ ci bokk ci Touba ci kanam ànd yaakaar naa benn murit bañu Touba jëm ci kanam kon ñu ngi fas yéene yeesal yeexal yeesal laxasaay ak sunu jaayante ci sa jëmm ji te ñaan yàlla àggale sa mébét sëñ Touba ndax yow bu sa yéene àggee sëñ Touba rek li murit yi bëgg sëñ Touba danañ ko am bëgg dana ko li sëñ Tuubaa bëgg it dana ko am sa yéene xatut ñaawul ndax sa yéene kat xatut ñaawut yàlla na yàlla àggale fa nga jëm yàlla na yàlla àggale fa nga jëm ah, bu loolu wéyee nee na bu loolu wéyee waxoon nañ ko ci ginnaaw na dañoo bëggoon puudar dëkk bi dañoo bëggoon balee dëkk bi ba mu set ñu puudar ko ndax yooyu daa bari lool ndax yooyu daa bari lool ak weñ yi ak gunóor yi di jox nit ñi ay tawat lu mel ne ay siburu ak lu baree bari tey jii dañoo ñëw di sàkkuwaat ndigal ndax buñ ci jotee bu guddee ñu tàmbaliwaat ko liggéeyal ci sëñ tubaa ba ku màggal si benn jàngoro du la fi toppe ku fi dikk itam benn jàngoro doo ko fi mën a dugal loolu mooy sababu ñu bëgg koo defar nee na loolu moo taxoon nee na mbirum lamp yi nga waxoon itam dañoo waxoon ne ku yaakaar sëñ Tuubaa ca dëkk ci dëkk bi ñun ñoo ngi lay ñaan nga wut ab lamp def ko ci sa buntu kër soo julee tamit taal ko boo julee fajar fay ko buñ ko defee mbedd yëpp dana leer ndax ñëpp jàpp nañ ne sëñ Touba daa war a dimbalee sëñ Touba daa war waaye kenn waru koo dimbalee eh, ndax lam bindoon ne fil bahri ne amadu yadi anni nasara habidil ma'i wa eh, loolu bi rek mooy mbirum sëñ bi waaye murid yi dañoo war a xoolaat seen bopp a xoolaat sunu bopp jaajjaat suñu pas sunu pas-pas ndax ku ne sëñ Touba barab bii nekk kenn waru fee gis lu salte kenn waru fee gis kenn waru fee gis ndox mu taa kenn waru fee gis ndox mu taa kenn waru fee gis lenn lu weesu lu nu róowut ak jaamu yàlla mbedd mu nekk ku ne war nga faa mën a tëdd jaaxaan fa teg fa sax si jaada julli fa jàng fa say xasida loolu la sëñ Tuubaa yelloo waaye nii mu mel de yelloowu ko de aca murit nan jóg ñun ñëpp jaayante ko sëriñ bi rek lii kenn mënu ko defal kenn murid yi képp ñoo ko mën a defal sëñ Tuubaa kon sëñ bi ñu ngi tàllal suñu loxo ndox mi tam waxoon nga ne nañ ci jaayante ñu ngi ciy jaayante lu mat ngi ci fanweeri million ñu ngi ciy jaayante lu toll ci fanweeri million war koo déggoo ak maawu rahmati ba jox nañ leen ko ba jox nañ leen ko loolu mi ngi ci mi ngir yaatal sañcaan yi jox ko seen bopp jox ko seen bopp ñu jàppale ci loola ñu jàppale leen ci loola li ñuy def lépp rek li ñuy def nag lépp dañoo fas yéene mu doon jëf te a doon wax ndax téeméeri kaay ma wax la benn kaay ma wan la moo ko gën a wóor ñun dañoo fas yéene di la wan rek oto yaa ngi nii kayit yaa ngi nii jébbal nañ la ko jébbal ko suñ lépp lamp yi itam junniy lamp agsi na murid yi dañ ko jaayante kenn ku ne def ko sa buntu kër nga bëgg dëkk bi leeree ni ngir ni nga bëggee dëkk bi leeree ni lépp dana leeree noonu nga ñaanal ñu sëñ Tuubaa rek dimbale bañ am central bu mag boo xam ne murid yi dong koy moom Tuubaa rek koy moom ku dëkk Tuubaa waratoo fay courant ku dëkk Touba waroo fay ndox ku dëkk Touba sax ku dëkk Touba sax waroo doon di joxe dépense sëñ Bamba mën na lépp sëñ bi boo ko ñaanee yow mii sëñ Touba def loola murid yaa ngi nii rek jo déglu ndigal rek la ñuy def. amuñu suñ dara. amuñu suñ dara. suñ bopp sax moomatuñ ko. lépp sëñ Tuubaa la. sëriñ bi sëriñ bi nee na wax na lépp. wax na lépp. sëriñ bi yéen waa Touba ca kanam sëriñ sëriñ bi nee na sëriñ Abibu Mbàkke wax na lépp. nee na jarul dolli dara. ci am ay eh, eh, kàddu yu bokk ci kàddoom yi mu wax. mu ne dafa am ay kàddu yoo xam ne dafa bokk ci kàddoom yi nga xam ne moom la sëriñ Habib wax. kàddu yi sax yëpp jub yëpp baax. waaye kàddu yi sax yëpp ñoo jub yëpp baax. yëpp am njariñ. yëpp am njariñ. waaye gi ci gën a gi ci dàqal nag. waaye gi ko ci dàqal nag. te te muy dëgg. te muy dëgg. dañ koo xamul rek. dañ koo xamul rek. loolu mu wax ne. loolu mu wax ne. dëkk bi dëkk bi. yooyu mu lim ne kenn mënu ko fee. yooyu mu kenn mënu ko def. moom moo xam moo xam àq dëkk bi. moom moo moom mii moo xam àq dëkk bi. sëñ bi noppi na ci. sëñ bi noppi na ci. noonu yi mu ko waxee rek. noonu yi mu ko waxee rek. lay amee. noonu rek lay amee. kon nag ñun ñii. kon nag ñun ñii. ñoo war a góorgóorlu ñoo war a góorgóorlu. jéem a jox sëriñ bi àqam. nii mu ko waxee rek loolu loolu man moom rek lay waaye xem naa ci sama bopp lool nee na loolu rek la bëgg waaye xem na ci boppam lool waaye nañ góorgóorlu rek waaye nañ góorgóorlu rek suñ kéem kattan suñ kem kattan bu li ci des bu li ci des daañ ñu gàttanu daañ ñu gàttanu dimbali ñu ci dimbali ñu ci Mbacke jërëjëf jërëjëf Mbacke sëriñ bi nee na Touba ca kanam moom ci la bokk bañ ko sosee rek la la daa ci bokk dama dama dolli sama bopp fukk juróom-ñeent ñoo xam ne eh, murid sarax la doon. mu ne moom fu mu fekk liggéey Sëriñ Tuubaa bëgg bëgg na caa bokk. mu daal wut juróom-ñeenti murid sarax. mu daal wut juróom-ñeenti murid sarax. Oh, yoo xam ne am na yaqin ci seen pësteef. juróom mën naa am lott nañu ci li ñuy laaj ñu joxe ko. te te mën naa am lott nañ ci lii ñuy laaj ñu joxe ko. tàmbali naa ci ñoom juróom-ñeent. fukkeel leen. mu ne ñooñu tàmbali na ci ñoom juróom-ñeent ak moom mi mu fukkeel leen. lu ñuy laaj taalibe yi rek danaa mu ne lu ñuy laaj taalibe yëpp rek moom dana ko dana ko def. dana ko def dana leen ko defal. te yéene taalibe yëpp itam. te yéene ci taalibe yëpp itam. suñ borom gën leen a gàttandoo ak tawfeexu sëriñ bi. lépp gën a yomb. gën lépp gën a yomb. lépp gën a yëwén. lépp gën a yëwén. gën a barkeel. lépp gën a barkeel. noonu rek la demee. bi ñu jógee rek. laa daal di xalaat ne Touba Ca Kanam nii dafa foo xam ne benn kuréel mos a jóg. daal daal daal daal daal daal daal daal jërë ngeen jëf bismillah